salaamaaleykum mbokk yi sitaan allo Dakar TV man Dallou Dakar nuyu naa leen fii ma tassé yene kay ñu da dem site Quotidien site Quotidien ñu da def euh, composition du nouveau gouvernement après la présidentielle de 2019 Macky à l'épreuve de la majorité Macky à l'épreuve de la majorité bo beugé xam ne ci bir demal xol nga xam ne mooy Sud Quotidien su ma jógee Sud Quotidien damay da dem ci yéen kaay Bougane Gueye Dany bi muy la turbine la turbine ñu def Macky face au urgence manam makki mi ngi jakkalo li nga xamanteni moy urgence bi soko ko xam xolal li nga xamni moy la turbine la turbine suma ci jógee damay dem ci euh, Walf Quotidien Walf Quotidien ñu da def euh, présidentiel du 24 février ces défaillances qui invalident la transparence du scrutin Awakoutou Ndiaye moo mo ci nek ko bëggee xam xolal li nga xamni moy mooy euh, Quotidien suma ma ci Walf Quotidien damay dem ci le quotidien sept ans deux visages cinq ans pour rectifier le tir ñu daal def Ousmane Sonko sur l'appel de Macky ah et il n'a ni pertinence ni urgence à la dialogue waxuma ko li nga xamante ni mooy quotidien moo ko wax su ma jógee di quotidien damay dem ci pop yéene kaay ñu def l'ossature du groupe qui doit aller à la CAN boo bëggee xam ne ci biir jënd li nga xam ne pop yéene kaay su ma ci pop dem ci l'observateur l'observateur ñu daal di def l'apothéose ah li nga xamante ni Ousmane Sonko ma nga cay wax ci biir euh, ci biir l'observateur Sonko crache sur la main tendue de Macky Sall waxuma ko li nga xamante ni mooy l' observateur moo ko wax su ma jógee dem ci enquête yéen a enquête yéen a kaay Macky Sall se barricade daa def euh, photo ki nga xam ne chef de cabinet Omar Youm ah ma nga formation du nouveau gouvernement bi waaw formation bi nga xam gouvernement bu bees bi Tim mu toll nii chéri Marème Faye bàyyi Amadou Sall xelam yëpp mi def mathématique waaye nag man xam naa ne man daalu Ndakaaru dina tegaat gouvernement boo xam non Sénégal yëpp dina émergence boo bëggee xam ne ci biir xoolal li nga xam ne enquête

photo photo waaw ñu ngi ni hein ah. ñom barkhan S5 Sahel impuissant bo man waxuma ko li nga xamni moy Dakar Times ko wax suma ma Dakar Times damay da dem ci Les Échos Les Échos Les Échos ñu def euh, maritew Teuw Niane bloc un brillant ingénieur sénégalais la ilaha illallah maritew Teuw Niane moom bloqué ben ingénieur sénégalais bu brillant ah non non non non non Teuw Niane débloqué ko so bëggee xamni ci biir xoolal li nga xamni moy Les Échos suma ma ci Les Échos damay dem ci source yéene kaay la raison indexée il y a beaucoup de déchets, c'est lent. El Hadj Diouf notre Aliou Cissé c'est corsaire Madame El Hadj Diouf ba ngay wax ak Aliou Cissé il y a beaucoup de déchets beaucoup de déchets c'est lent etc. cetera waxuma ko laar suuf su ko wax su ma jógee ci vous suuf damay dem ci critique yéen a critique yéen ñu def la ilaha illallah silence on massacre les Peuls au Mali maanaam noppi leen ñoo ngay tànc ci Mali ay na de li ñu def Mali te Sénégal waxuma ko critique ko wax suma critique dem ci direct info direct info ñu def beaucoup de têtes insoupçonnées vont tomber manam changement gouvernement bi Macky Sall di def manam tête yu bare bare bare bare bare wad waxuma ko li nga xamni direct info moko wax direct info def Ama sort le caw sa xiir lay la doomu pikine bi mom dal fi ni kum rek bi da lay dal waxuma de sunu lamb ko wax suma ci dem les lions imposent leur suprématie waaw Sénégal Madagascar 2-0 Sénégal lu xew. waa Ouest Foire ñu dëkk ci wetu marché Sëñ Fallou ba ñu dëkk ci wetu ñaay ba guddi yi ñu toll lekkatuñu naanatuñu amatuñu jàmm nee nañ courant amul mbeddi yi lëndëm na insécurité totale bordel total ba am ci wetu marché Sëñ Fallou daal ñoom ñu ngi laaj ba xam ndax am nañu maire wala amuñu maire Ouest Foire ñooy laaj ba xam am nañu monsieur le maire wala amuñu maire man nag sama yoon newu ci bye bye